وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه والتكفيه عن نكدي nga xamante ne yéen ñuy seetaan ci seen jotaay bu am solo bi di al liqaat te mooy daje ak Eh, kilifa yi nga xamante ne ñooy siyaare si barab bi ni ngeen ko baaxoo ànd ak yéen nga xam nañ ci dalal ay kilifa yoo xam nañu siyaare si fii ci Touba kilifa yoo xamante ne dañuy eh, nekk ay ndaw yuy teewal seen dëkk fii ci Sénégal eh, ak yu mel noonu tey ñu ngi daje ak kilifa goo xamante ne ab la muy Fadel Abdou ñu ngi ànd ak euh, tey euh, sëñ Fallou Abdou Razak nga xam ne moom mooy jiite euh, kër gi nga xamante mooy Al Jazeera ñi nga xam ne moo ngi nekkee ci Tchad mu ñëw fii tey ziare ci Touba waaye nag mu aju ci wàllu liggéeyam bu jëm ci wàllu. ñëw saytu ak xool li nga xam ne moo fi ñu bàyyi ko mu présenté wu. Euh, li ma njëkk wax mooy bisimilah rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah jërëjëf Serigne Cham ci présenté bu am solo boobu nga xamante ne wax dëgg yàlla na ngaa baax waaye yeyoo ko tey dañoo ñëw fii ci Touba si yi nga xam ne dëkk bu mag la. nga xam ne yàgg nañ ko dégg nga xamante ne ñëpp dégg nañ Touba ak euh, li fi xew lépp tey nag ñu ñëw fii euh, siyaar si ko mu nekk njëlbeen ak ñu fi ñëw sant mboolem waa dëkk bi itam waaye rawatina ñi nga xamante ne ñooy liggéey fii ci barab bi di jumaa ji nga xam ne yombalal nañ ñu euh, bi nga xam ne ko doon siyaar wan ñu barab yi nga xamante ne yëpp war nañ ko ziar te mu nekk ay barab yu am solo nga xamante ne mooy moo xam mu ne ci biir jumaa ji wala li ko wër te yëpp di taxaw taxawaay bi nga xamante ne mooy euh, taxawaay bi jumaa ju man a nekk war a am ci euh, diine ji te mooy dimbale jullit ñi ak wooleen ci lu leen jariñ jërëjëf hmm, Abdourazaq am nañ mbégte baax a baax ci dalal la fii ci Touba ak euh, xam nañ ne lii mooy sa njëlbeenu ku yoon nga fi ñëw fii ci Touba ñu xam bëggoon a xam lan mooy waral nga ñëw fii ak euh, lan mooy yéeg-yéeg bi nga am bi nga siyaare euh, tuuba ak barab yi nga siyaar yëpp. waaw jërëjëf sëñ bi lii mooy njëlbeenu ko siyaar boo xam ne siyaar naa ko ci Touba. waaye nag euh, nekkut siyaar euh, bu nekk ci waa Jazeera ndax waa Jazeera ñëw nañ fi ay yoon yoo xamante ne fi ñëw ngir xool si la fi xew wan ko àdduna bi yëpp euh, te loolu ma liggéey journaliste ñun nag tey nag lañ fi ñëw li ñu fi indi mooy jël si li nga xamante ne mooy xew-xew bi ëpp solo ci jamono yi ñu génn te mooy eh, taxawaay bu am solo bi nga xamante ne kër diine yi eh, mu yoonu murit am na ko ci taxawaay ci xew-xew boobu noonu nga xamante ne eh, taxaw na ko ba nga li nga xamante moo yitteeloon Sénégalais yëpp te mooy yëngu-yëngu yi fi amoon nga xamante Sénégal mos koo xam ba nga xamante ne lu doy waar la nga xam ne ay sax tuuru nañ ci waaye ci ndimbal yàlla li mel ne lépp taxaw na euh, ba jafe-jafe yëpp arrêté ci taxawaay bi nga xam ne sëñ bi am na ko mm, loolu nag mooy euh, jàngat si ñëw xool si dëgg-dëgg euh, taxawaay bi nga xamante ne kilifa diine am nañ ko mm, ci seen diggante ak population bi waaye ñi nga xamante ne mooy gouvernement bi ak ñi nga xam ne ñoo ko jéggi ngir gën a mën a saytu bu baax a baax dëgg-dëgg lan mooy taxawaay boobu euh, nan lañ koy defee ak euh, ñi koy def ñan lañ ngir gën ko mën a wane. Euh, loolu mooy taxawaay bi nga xamante ne xilaafa gi am na ko mm, sëriñ bi euh, waaye nag mooy taxawaayu mbooleem kilifa diine yeneen yi ci des yëpp ak euh, mbooleem euh, ñi nga xam dañuy wooteel diine ñëpp dañuy woote ngir Sénégal yëpp ah, ñëw toog waxtaanee mbir mi te bañ a xëccoo bañ a xeex te loolu mooy wax dëgg yàlla li nga xam ne moom la lislaam jàngale jërëjëf ginnaaw bi nga ñëwee ba gis li nga xam ne ñoo fi xew lépp nga euh, gisal ko sa bopp boo ko doon mm, xayma euh, di natt taxawaay bi nga xamante ne moom la kilifa diine yi am euh, ci de ci réew mi rawatina dëkk bi nga xam ne senegal la nga xam ne ñu xam ne dëkkub laïcité la. Euh, nga xam ne kilifa diine sax dañ leen génn ci mbir mi nga xam ne bokk ci wàllu politique ak li koy doxal yi doxal dëkk bi te léeg-léegi ñu leen ci woo ngir ñu ñëw euh, indi ci seen kàddu boo ko doon seetu yow en tant que journaliste looy wax. Hmm. këri diine yi buñ ko mënee tuddee noonu <laughs> dañ nekk ay taxawaay lañ ñu am yu am solo euh, boo xam te nag lu yàgg la nekkut lu bees ndax. njëkk euh, tubaab bi di fi ñëw sax taxawaay boobu lañu amoon bi nga xamante ne tubaab bi ñëw nañ nag ci lañ nekk di euh, jéem a dindi loolu nga xamante ne ñi fi nekkoon te ay kilifa diine tamit dañoo jàmmarloo woon ak ñooñu ngir euh, gën a mën a jariñ seen seen askan loolu moom sa nekk seen taxawaay. Euh, te sëñ Tuubaa mi sos yoon tamit ku euh, ràññeeku la ci ñooñu ñun mënuñoo natt lay xew euh, ñun ay journaliste lañ rek li ñu def mooy dañuy wane li nga xamante ne moo fi xew. Euh, jéem suñu kem kàttan ci wane wane ko ni mu amee euh, waaye duñ ko mën a xayma waaye liñ mën a xam dëgg-dëgg daal mooy euh, Sénégal dëkk la boo xamante ne ci ay texem boo xoolee texte yi ay day génne lépp loo xamante ne wàllu diine la lépp loo xamante ne ay kilifa diine da leen di sorale li nga xamante ne mooy doxal réew mi waaye nag Euh, nañu nangu tamit ne ñu nangul nañ leen na euh, taxawaay kilifa diine yi ne taxawaay boo am solo la boo xamante ne moo xam ñi jiite réew mi ak ñi kujje ñëpp euh, nangu nañ ne wax dëgg yàlla taxawaayu kilifa diine yi taxawaay bu am solo la boo xamante ne kenn mënta kenn mën koo weddi Euh, loolu moo tax da gis saa yu nekk ñuy gis ne nit ñi dañuy waxtaanee euh, ak di woo kilifa diine yi ngir ñu wax ci li nga xamante ne mooy xew ngir jullit ñëpp mën cee jariñu hmm, jërëjëf euh, ci sa gis-gis ak sa xam-xam yi nga xamante ne am nga ko ci wàllu politique naka gisee taxawaay ak euh, relation bi nga xamante ne am na ci diggante mm, kilifa diine yi ak ñi nga xam ne ñooy way politique yi dëgg-dëgg mm, euh, li nga xam ne moom lañuy seetlu ci mm, barab bi nga xamante ne mooy Afrique soowu jant ci jëm boppam dañuy gis ne ñi nga xam ne ñooy gouvernement yi ak ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine yi euh, dana am. Mm, seen ab ab relation waaye wuute na nag ndax li nga xamante ne moom la ñu fekk Sénégal mën naa wuute la ñu fekk Mali man naa fekk mën naa wuute itam bu baax a baax la ñu fekk Guinée euh, naka noonu mën na euh, gën a wuute itam ak li nga xamante ne moom la ñu fekk Mauritanie ndax Mauritanie. Euh, boo xoolee day mel ne ci biir tubaab di dëkk bi sax da gis ne euh, danga ci ciy gis diine ci seen taxi yeeg yëpp danga nga gis ne day euh, dëppoo ak lislaam hmm, loolu nag wuute na lool ak li nga xamante ne mooy am ci yeneen réew yi ci des waaye nag buñ xoolee rek ci li gën a bari gën a ëpp hmm, mbir ni mu doxee ci ni dañu gis ne taxawaay Eh, yu am solo la ñuy taxaw kilifa diine yi donte ne dañuy gis ne dañ leen sorale ci liy doxal dëkk bi eh, waaye nag bu ñu xoolee ci jamono yu mujj yi nga xamante ne ñu gis ne eh, dëkk yi dafa ñàkk sécurité ñàkk ak dal ngir am ñuy woote ci diine ci beneen anam boo xamante ne wuute na ak ñi nga xam noonu lañ ko doon njëkk a woote moo tax boo xoolee ñi nga xam ñooy ñi jiite gouvernement yëpp dañuy bëgg di woo kilifay diine yi ngir ñu dugg ci biir seen woote boobu di leen boole ci seen mbir yi ngir ñu mën a jàmmarloo ak yeneen xalaat ak yeneen giseen yi nga xamante ne giseen la yoo xamante ne mën naa indi ay jafe-jafe ci wàllu sécurité waaye mën a indi ak ñàkk dal ci seen ci seen dëkk loolu moo tax taxawaay bu am solo la euh, jërëjëf Euh, naka nga gisee ëllëgu jëflante boobu euh, waaye nag tax ëllëgu taxawaay bi nga xam ne kilifa diine yi mën nañ koo am rawatina waa kilifa yi euh, tasawuf yi ci jëmmal jàmm ak looy tax dëkk bi gën a dal def ñun ñi nga xamante ne ñooy doomi Afrique yi nga xamante ne ñoo dëkk dëkkee Afrique soowu jant yëpp xam nañ Euh, ci li nga xam dégg nañ ko ci suñu ay baay euh, jàng ko ci suñu histoire xam nañ ne wàllu diine dafa nekk loo xamante ne dafa am solo lool te diine moo ñu jokkale woon diggante ñi dëkk Afrique soowu jant ak yeneen jullit yi dëkk ci li des ci àdduna bi yëpp euh, ci li nga xamante ñu boole ci wàllu culture ci wàllu Mm, jëf euh, dundin ak lu ci aju euh, mu mel ne kon diine dafa nekk mbir mu am solo moo xamante ne ci suñu dundin euh, lu yàgg la lu saxoo ak li nga xamante ne mooy dundinu Afrique sowu jant loolu moo tax bi nga xamante ne ñi tubaab bi ñëw nañ dañu mel ne loolu dañ koo dindi nga xamante ne biñ ñëwee dañoo xañ diine euh, doole jooju nga xamante ne amoon na ko euh, jéem a effacer li nga xamante ne moom mooy euh, jikko yi nga xamante ne amoon nañ ko ak niñ doon jëflanteeg yooyu yëpp. Euh, waaye ginnaaw bi nga xamante ne am nañ indépendance nag day mel ne eh, diine diine mi ngi jëlaat eh, taxawaay boobu nga xam ne amoon na ko bu ñu xoolee rek eh, université boobu mag bi nga xamante ne ñu ngi koy taxawal fii nga xamante ne day gën a mm, dëggal gën a jëmmal ne bu ëllëgee. diine mën naa amaat place bi nga xamante ne amoon na ko ci day mel ne kon lim ñàkkoon mi ngi koy jëlaat ndànk-ndànk te loolu nag li ko waral mooy e, taxawaay bu am solo bi nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo fi wuutu ñi nga xamante ne ñoo woon taxawaay bu am solo boobu jàmbaar jàmmarloog ñi nga xamante ne ñooy ñii ñu doon noot ñi leen e, wuutu day mel ne yëg nañ taxawaay boobu te wax dëgg yàlla ak cant war na ci. kon daal lëg bu am solo laa gis lëg boo xamante ne bu euh, bu yaakaaru la euh, gis nañ ne euh, bi ngeen ñëwee fii dangeen ngeen doon fi ngeen gën a kii fi ngeen gën a yittewoo daal mooy xool li nga xamante ne moo gën a aju ci wàllu xam-xam ak yooyu lu tax ngeen yéen waa Jazeera loolu yitteel leen waaye ñun li ñu yitteel mooy ñi nga xamante ne ñoo ñuy topp dañuy xool liñ soxla ñu leen koy. Eh, jox ndax li leen yitteel ki ne ci biir këram taal télévision am na lu ko yitteel loolu la ñuy jéem a eh, gëstu xam ko di leen ko wan ki nga xam daa toog këram di seetaan teleem daf bëgg a xam li xew Tuuba waaye day bëgg xam li fi am ci wàllu xam-xam li fi nekk lépp ñun nag dañu bëgg di gën a euh, yittewoo li nga xamante ne mooy euh, li nit ñi wane wut ñun ñu koy gën a wane rawatina lu aju ci wàllu culture ak lu aju ci wàllu euh, xam-xam nga xamante ne xëy na ñeneen télé yi ak yeneen rajo yi wane wuñ ko ñun ñu koy wane ngir mën a jox ay xibaar ak ay euh, xam-xam ki nga xamante ne dañuy seetaan euh, jërëjëf day mel nag da tontu tontu bu matut ci li ma la njëkkoon a laaj euh, ci lu ajo day mel ne jasiira dañoo fexe ba am. Euh, nit ñu bëri ñoo xam dañ leen di suivre nuñ def ba nga xamante ne euh, mbooloo mi dañuy dem di leen seetaan nit ñi yittewoo li ñuy seetaan lan mooy secret bi nga xamante ne moom la Jazeera def ba loolu am euh, <laughs> li ko waral mooy ñi nga xamante ne ñi ëpp ci ñi Jazeera di liggéeyloo ñu nekk ay journaliste yi nekk ay ay présentateur li li dañ leen di xamal li nga xamante ne mooy li nit ñi soxla ngir ñu koy dem waaw di gën a xamal nit ñi barab yi nga xamante ne ñoom mënuñ faa demal seen bopp ñun ñu dem fa wan leen la fa nekk xamal leen ko loolu mooy yi nga xamante ne moom lañ moom la jaseera def bu ko defee loolu dañ ciy mën a jàngatee ëllëgu barab boobu nga xamante ne moom lañ leen wan jërëjëf al oustaz xam naa ne laaj bu mujj bi nga xam ne moom laay laaj mooy yan yëg-yëg nga am bi nga euh, siyaaree dëkk bi siyaar ay barab yu wuute ci dëkk bi euh, ban yëg-yëg nga am ci dëkk bi ak lan nga jàpp ne mooy ëllëgu dëkk bi euh, sama yëg-yëg dëgg-dëgg mooy gis naa ne dëkk la boo xamante ne bu mag la dëkk la buy màgg dëkk la boo xamante ne eh, ni nga xamante ne noonu lañ koy noonu la ko nit ki di déggee ak di ko gisee eh, gën naa màgg loolu eh, ak mbooleem yi nga xamante ne ay jafe-jafe la yoo xamante ne dëkk bi mën na ko dund waaye ñi nga xamante ne ñoo fi nekk yor dëkk bi wax dëgg yàlla ñu ngi def ay ay ay effort yu mag yoo xamante ne mm, mooy jëmale dëkk bi kanam Euh, waaye di taxaw ci loo xamante ne day tax ñi fiy dugg ñi fiy dund mën a dund dundin mu mucc ayib euh, li ma yëg daal dëgg-dëgg mooy dëkk la boo xam ne bu am ëllëg la boo xamante ne euh, bu bu yaakaar la ne ñëw ci kanam mooy gën a am solo li nga xam ne moom lañ toll nii jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a baax. Eh, di la sant ci suñu kàddu waaye ko jaar la ci yow di sant waa Jaseere yëpp ñun ñi nga xamante ne dañ leen di seetaan fii nii eh, ci dëkk bi te mu nekk mbooloo mu bari moo xam ne dañ leen di topp waaw ñun tamit maa ngi leen sant man tam eh, wax dëgg yàlla ndax doonte taxawaay bi ngeen am mooy di woote ci diine ak lislaam ñun nag li ñuy def suñu rôle wuute naag loolu mooy xamal ni ñi joxe xibaar rek waaye ñu ngi leen sant bu baax wax di leen gërëm. waaye maa ngi eh, ah, xanaa waa xanaat bi nga xamante ne moom mooy eh, télévision bi nekk ci jumaa ji eh, danañ mën a jëflante ak ñi nga xamante ne ñooy Al Jazeera mën a jokkalante ci jëflante àndandoo di liggéey waaw incha allah loolu mën a nekk la incha allah ah, kon jërëjëf mbokk yi nga xamante ne ñu doon seetaan li topp ci seen. Eh, jataay bi nga xamante ne mooy ndaje xam naa ñu ngi leen jox beneen ndaje ci yeneen eh, kilifa yoo xamante ne mën nañoo leen a dalal fii ci jataay bii di alliqaat asalaamaaleykum wa rahmatullah وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه عن نكدي